toog keroog ci suuf di waxtaan ak seema laamin jóob ñuy waxtaan am ndaw lu ñëw ci bamba daldi di koy déey ni faat jaxate am na gantay mu jël loxoom bu booba mbaake bind ca suuf asaal yaa cey mbaake muhammadul amin dem dellu jël xalimaam bind ca ay bayit yu wér jox ko أبقى لنا بفضلي ساليا باغ لنا جاد بي ساليا أبقى زمزا في سماء أدري يسخل منه وجهه كاليا أبقى مؤمنا لاديا مباركا مسان فاليا am na bisit sëriñ bi ñëw di soññee ci ab jataay sëriñ bi doon ku ràññee jotaay ba Seex Saaliwu Mbàkke moo nga fa nekk ca biir sëriñ bi ñëw fekk ko fa ba mu ñëwee toog ci wetam ñu puus ko sëriñ Isa jën na ko xawa puus ko lam jublu woon puus ga mooy ngiru teral Seex Bamba ñëw am fu mu toog fu jàpp ndal sëriñ bi xëccaat ko mu ñëw ba jige ko Isa ngi toog keroog booba mu dal ni ko Isa xanaa xamoo ni kii saa gaa yépp xool ko xam ni mbàkke moomam keroog sëriñ isaa daa génne junniim jox ko saaliwum teg ca yéeneem naa yal na sëriñ tuubaanaam defar sunuy mbir baatinan wa baanaam alxamdulii ñuy sant fii bamba tey ngir moo taxaw julli fa ndar bañu sañ ko tey rakkam ya mooy sawetaas ci ñun mooy daba tey màggal ko moo di li ci ñun di ko sant tey biro bee fa moo atte mbër ya fa jaar ba ku ci dul sëriñ tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldar sa ak waa tribunal keroog ñëpp xëy kañu naan borom ndar ñëw taxaw di ku yàlla jay ma nga mertanaa mer de maay seen yàlla ku mu woo keroog président nga wax mbaane nga wey mu ni leen ba lislaam mu fay bu mu weesu tas jàkka yeeg seen daara bu ma kenn lay ku ni noo ku ni wii ma fay fa mu daldi xëy lislaam di jooy foofee ba xëy doon waaja wey see bamba moo gàntal keroog yenu yeen ba wey bi mu dellu see kenn leen di nuyu di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ci teg sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Saliou ak njabootu sëriñ Saliou yëpp ñëwoon fii nag tey ci Xelkom fekk si suñu mbokk suñu ñoo bokk baay muy sëriñ Saliou Mbàkke moom sëriñ Bassir moom sëriñ Modou Xaban ñu ñëwoon nag doon barkelu ci liggéey bi ñëwoon fii ci moom ak sëriñ Saliou moom sëriñ Alaaji Baara ci ñaar dal daal ci fi lañ nekkoon fekk fi nag lu kawe suñ jot lool sedd suñ xol lool ci taxawaay yi ak ci pësteef yi ak it ci nungu gi liggéey suñ Tuubaa di ñaan suñ borom dolli ñu kàttan dolli ñu ndimbal dolli ñu man ba ñu gën a mën a liggéey suñ Tuubaa ma àndoon ak sëriñ maam Cheikh Mbacke ak sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Modou Xaban moom moom sëñ Fallou ñoo ñu àndoon ñëw fii tey seet si woon suñu mbokk sëriñ Saliou moom sëñ Bass moom sëñ Modou Xaban di am mbégte lool ci liggéey bi. mu gi moom dañ ko namm ba yegg ci lool lool lool ndax man mii de damaa xëy ñëw bi ma ñëwee mel ni liggéey damaa fekk muy bëgg a yiwen waaye su ma ko xamee woon noonu day barki démb lay ñëw waaye damaa nekkoon di wut oto bu mag bu bu mën a ñëw ndax xaw woon oto yi ndaw yi mën nañu fay ñëw bi ma koy xam ma ñëw waaye fekk naa liggéey bi jeex kon nag mbooloo mi moom waxtu wu ne ñu ngi nam ma liggéeyal Serigne tubaa tey nag amuñ lenn nag lu des lu du liggéey Serigne Touba tey la ñuy gis suñ bopp ci la ñuy fàttalikuwaat suñ diggante ak suñ jàmbaar ji Serigne Saliou Mbacké kenn ku ci nekk xam nga ni tey Serigne Saliou jugu fi kenn ku itam xam nga ni Serigne Cheikh mii fi nekk itam nekkal fi Serigne Saliou itam la Serigne Saliou taxawoon rek foofa la taxaw moo tax nag mbokki taalibe yi xam nañ seen njariñ ak seen ndimbal ci liggéey Serigne Touba képp lañ ko mën a seenu ñàq ñëw tuuru fii képp mënuñoo am lu lu lu ëpp loolu moo tax dañ koy namm di ko yàkkamti di ko bëgg waxtu wu ne buñ sañoon day bis bu set ci ci lii la ñuy xëy ci la ñuy yendu moo tax bu ñu ko wootee loo ko yéex a ñëw rek di nga fekk lépp mat. liggéey liggéey suñ Tuubaa moom mooy am sagaa gaal rek mu mu baax moo am def ca loo am denc ca soo ubbee daal loo ca fekk na xam ne yaa ko ca def moom nag dafa neex liggéeyal ndax day jël coono ba euh, bàyyee la ndam la euh, te suñ Tuubaa moom boo ko defalee benn mu defal lu fukk ba ñaar fukk kon nag ma leen soñu mbokki taalibe yi di leen xamal ni yoon wi moom la ma sëñ Baara waxoon rek yoonu jëf la du yoonu wax jëf nag ca la ñuy rawee kon nag képp koo xamante nii daal bëgg ngaa bëgg ngaa raw lala lala lala weesu woon tey dara weesuwul nag ndax suñ Tuubaa ma fa newoon rek moo fi nekk ba tey jii euh, maa hindakum yan fa doo maa hinda laay xayra baax lu baax moom du fi dañ dañ mukk di fi des maanaam kenn ko ne sa positif rek ak nanga nga jàppe sëñ bi rek ak nanga nanga nanga nga na nga na nga na sa positif fa mu toll rek foofa la sa njëriñ di toll waaye sëñ bi moom mosu fee jóg te du fi jóg di sant nag sëñ Saliou Mbacke mii mum sëñ moom sëñ Bass moom sëñ Xabaan ku xool ci moom tey ñëw ñu ni la kii Mbàkkeel sant di sëtu sëñ Modou Xabaan da nga naan déedéet te dara wala ko nag lu du pësteef ak itam xam-xam àndaloon muy sëñ Saaliyu ak lam ko mënal moo tax tey jii mu futteeku yam ak ñëpp yam ak donga yi sëñ tubaa nag moom jëf rek moo ciy maye akuk taalibe ak nungu ak liggéey yàlla na yàlla may kàttan ak wér ak euh, sutura suñ man fu sëñ tubaa wootee rek ñu mën a ñëw liggéeyal ko xam ni lépp suñ njëriñ dong la lépp su njëriñ la rek wasalaamaaleykum wa